bon li nga xam ne tey moom moo tax ba mboolem ndaw yi nga xam ne ñu ngi ci commune bu Touba dajaloo fii ci ndaje moo xam ne daje nañ bii mooy ñetteelu yoon boo xam ne ñu ngi dajee di waxtaan ci maanaam li nga xam ne ci lañ jëm di élection yi parce que ku ne xam na ne ñun ndaw ñi li ñu war ci élection yi lu bari la te war nañu fexe ba élection yi ñu jëm ñu ndaw ñi ñu joxante loxo doon benn. dajale ñi nga xamante ni bi mooy suñu ay responsable maanaam ñun ndaw ñëpp fi mu toll ñi dañoo joxante loxo te fas yéene nañoo ànd ci nu mu gën a rafetee dem ci élection yi falaat ki nga xam ne mooy la président de la république parce que xam nañu ne élection yi nga xam ne jàll na am na lu bari loo xamante ne bi daan na fi am la fi doon am nag la ko doon indi bu ñu ko xoolee ba ci biir ci ndaw ñi la daan jóge kon nag bu ñu demee ba ñu ndaw ñi nga xam ne tey dañoo nekk ci APR di woote dal ci mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ci parti bi mais aussi ci ñi nga xamante ne bi nekkuñ ci parti bi parce que ñun dañuy bàyyiloo xel suñu ay ñoñ que ni dëkk bii nga xam ne ci lañu nekk dëkk bii nga xam ne ci la nekk di commune bu Touba mérité wul ñu nekk fi di coow ci wàllu euh, euh, moo xam élection la wala campagne la wala lu mën a doon donc moo tax kon ñu ne ñun dinañu dajaloo pour woote bennoo dinañu woo dinañ dajaloo aussi pour woote ñu ànd ci dal woo aussi ñi nga xam ne ëllëg ñoom la ñu nar a bokkal terrain bi ñun ñu def lépp ci yar ak teggin ci campagne bi. mais aussi dinañu ñaax ñi nga xam ne tey suñu ay kilifa yi nekk ci parti bi ñoom ñëpp ñu joxante loxo parce que xam nañ ne ci kaw bennoo lañ mën a àndee gagné tant que benn wuñ aussi mënuñoo gagné tout cas loolu mooy objectif dëgg-dëgg ndaje mi nga xam ne tey moom lañu ñu amoon. nos camarades parti ici réunis. vous vous présentez voilà donc moi je suis Bathie Samb. un leader de l'APR. Voilà, voici notre troisième rencontre. Des rencontres que nous avons tenues ici, tout juste pour discuter des élections présidentielles du 24 février prochain. Toute la jeunesse de la commune de Touba est réunie derrière une unité qui est une unité d'action et une unité de protection. Parlant d'unité d'action, nous sommes donc tous les jeunes de tous les leaders de l'APR de la commune, unis pour une victoire du président Sall le soir du 24 février. Nous avons donc énuméré une préparation sur le, point de la, sur le plan de la communication pour véhiculer un message aux populations de Touba sur les réalisations du président Macky Sall et également mettre en place un dispositif pour sécuriser les élections sur le plan de la sécurité par là, nous lançons un appel à tous les leaders de la localité de s'unir, de se donner la force pour créer une conjoncture pour, pour une victoire le soir du 24 février. Inch'Allah.